waaw xaaral bi si kii nii la xaaral bi. baax na noonu. oui.

yàlla sëgal sëgal ma Sanjay,

rek daan na rek rek daan na rek rek daan na yaayu rek rek ki mooy yaayu rek rek yaa nu moom yëpp na kurus di ñaanal sa doom daay la ki mooy yaayu rek rek mbokk rek rek yaa ngi waa Fabem waa Fabem ki mooy yaayu rek rek yaayu rek rek rek papa yaayu rek rek ngi mbokk rek rek kontaan nañ làmb ngi yaayu Reug Reug nee na ndam rek incha allah dëgg la mais du ñu moroom Sa Thiès di génn jël ambiance waaw kër Reug Reug waaw naa ko. waxoon nga ko dama na woon. waaw rek rek demal nga daan ñu ngi si loolu la sant. loolu la ñu sant rek rek. yaa ngi dégg du leneen. demal daan ñu ngi si loolu la sant. dem nga daan ñu ñëw. voilà waxoon naa leen ko. waa ko ñu rek rek kontaan nañ Oh. Oh. You. Neewoon na inshallah rabbi ndam li ci at bi lay ñëwaat. loolu la ngay dama bëggoon a yàqal combat bi parce que xam nañ ne dañ leen di daal ñun lépp lañ xam dañoo xam lépp xam nañ ne góori kaare ñoo mën góori géejawaay kay ju rëbb ka dee kay ju dakkaay xuraan joxuñ la victoire. dama ko ñaanaloon ma ne yàlla yaakaar ku dul yàlla am liggéeyu mbay barke baay rek la dafa am ñaanu waay yaayam dafa sëy ba tee yaayam musul jël ndabal fay rek la xale bu am jom xale bu am kilifa lii rek la mën a demee nii la mën a demee am ñaanu waajur rek bul xalaat dara barke yeneen ci bi ndam rek kaw la kanam du mën a saabe ndam rek ku ñëw rek ngir Reug Reug mu tuub ne ko waa jaaree ji jëm moom koy xaar na tuub na tuub moom dafa gëm boppam te yàlla la gëm gëm yàlla ci ñun dañoo gëm yàlla gëm Muhammad Rasulullah ne ko na tuub ñoo jël moom day na tuub na tuub waaye daay li nga lamba ngi seen waa kër kontaan nañ ana maam ana maam nuyu nañ la noonu noonu dundee victoire bi. ah yaay maa mu rek yaa ko waa yéen a bokk ndey ak baay. ok bàjjanam bàjjanam la. waaw que koo woo mu usi la. dafa nekk si na ñu bëri ci jàmm am jàmm am salaam wala ñoom war merci beaucoup kooku mooy maamu ma papa yi Reug Reug ñoo bokk ndey ak baay wax na ko. waaw. waaw. ñëw. waaw. ñëw. waaw. ñëw. waaw. waaw. ñari. waaw Merci beaucoup. Merci. kontaan rek kontaan rek kontaan rek yal nañ ci giraayam yal nañ ci giraayam mbokk internet du Sénégal 7 si yaay nge kii mooy yaay Reug Reug Thank you. kooku yaayu Reug Reug mooy yaayu Reug Reug moo jur Reug Reug mun na victoire bi macha allah kii mooy yaayu Reug Reug jàmbaar yaayu oh, mairie kontaan nañ yaayu Reug Reug kontaan na laay laa si moteer baa ngay laaj Sa Thiès lamb lii la ndeysaan mooy yaayu Reug Reug mbokk yaa ngi koy ñaanal ndeysaan na la yàlla fay sa xol bi yàlla na la yàlla a ñàkk si yow man ah, nag da ngaa sonn si kër baayam bi man dafa sonn si kër jaagaan bi dugub la kenn xamalu ko dara kenn ñu daan ànd ñu ñu ànd kenn xamalu ko dara kenn xamul ba taw ba taw xonk na kenn xamul gis na kenn xamul kan la lii nag yàlla na ko yàlla defal lii mën na ñàkk si yow. dem naa damaa fexe damaa yëngu ba ñëwal. mais mais mais. te doom ba ci séeréer naaw yi ama suñu neexal dina mos a dugg si kër àdduna. billaay walaay taala. te daa ful am fula. billaay walaay taala. kontaan naa kontaan naa bu baax waay. ndeysaan kii ngeen gis mooy yaayu Reug Reug dëkkandoo yi ñëw di di di ko di ko di ko ñaanal di ko defal di ni sa doom jàmbaar la du la mën a du la mës a rus lool bàjjan a ngi nii bàjjan ndeysaan oh, oh. internet yi Sénégal seen ñëw ñoo nañ fi nga xamante ni si mooy kër Reug Reug waaye jëlal lii jëlal lii ay taaj ma dikki taj sa bëj sa taj di bu sa bu sa bu sa bu sa bu sa bëj sa bax sa jëm ci sa taj ma jër taj jër taj jër taj ma ragit tay tay la way way way kii mën a feeñ way ñoor lii borom cere yaa ngi waaw ñëwal waaw ñëwal ñëw waaw gis nga gisandoo noonu fii mooy kër Reug Reug gis ngeen ni ba am ambiance nañ ba mu neex